il Hadji Chérif Mohamed Aydara di médecin traditionnel di yëngu ci fajum cosaan ak aada maanaam lu jëm ci mbiri médecine traditionnelle il Hadji Chérif Mohamed Aydara askan wi ràññee nañu ko lool ngir xarañam ci fajub cosaan ak aada mën lool wàllu bët maa la ko wax képp ku am bët buy xasan bët yu café bët yuy jooy mbaa nga am katarak bi début glaucome dawal seeti il Hadji Chérif Mohamed Aydara daf koy faj lu xeetoog ndoxum siti yaram buy xasan boo wokkee mu naaj maa la ko wax malgré feebaru ndoxum siti fu mu toll rek El Hadji Chérif Mohamed Aïdara daf koy faj yow mi am faiblesse sexuelle maanaam éjaculation précoce nga xamante ne booy sëy da ngay gaaw yegg El Hadji Chérif Mohamed Aïdara daf lay faj ba nga dellu fa nga nekkoon yow mi bëgg yokku sa kàttanub sey dawal seeti El Hadji Chérif Mohamed Aïdara ñi am jafe-jafe ci wàllu hémorroïde moo xam muy externe wala interne ñi hémorroïde sonal maanaam dem bay nat ci deret biir buy seere biir buy metti loolu lépp El Hadji Cherif Mohamed Aydara daf koy faj day faj nerf sciatique prostate infection ak yeneen yu ni mel mboolem jàngoro buub seen bopp ràpp jaaxal leen te ticc ne du wér boo demee seeti Cherif El Hadji ay Aydara daf la koy saafaral ci lu amul benn werante mbokk yi adresse baa nga Parcelles Assainies unité 10 en face église bi bésub alxamis yi nag El Hadji Cherif Mohamed Aydara ci bi xotaan lay nekk mbokk yi bu ngeen am ay leeral mbaa ngeen bëgg ak Cherif da ngeen di woote 96 68 68 wala ngeen jokkoo ak Chérif El Hadji Mouhamed Aïdara ci 76 461 68 68 El Hadji Chérif Mouhamed Aïdara macha allah dafa xarañ lool ci wàllu médecine traditionnelle daw leen ca gaaw. Jolof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré Jolof ci Chicken moo leen di may li ci yéenekaay yi jërë ngeen jëf Ousmane Sonko moo xëy ne fàng ci mboolem yéenekaay yi génn tey ubbil enquête yéenekaay journal bi ne le combat à mort fësal nataalub la xewoon ca Kër Massar démb moom son Sonko ne ci yéenekaay bi bind na testament ba pare te it nag Macky Sall dana jël ba kanam mbaa mu jël bosam moom Ousmane Sonko ak i ñoñam ci jiixi a gañu ne ci danañ wuy jëm déet Mambay Niang yéey na ci yàbbi ci yéenekaay bi moom Mambay Niang ne Ousmane Sonko mu neex ko wax Ousmane Sonko ne ci yéenekaay bi muy moom mbaa Macky Sall kenn dana ci jël bakkanu moroomam bu coow li dakkul l'info yéenekaay ne Ousmane Sonko ngay mobiliser ay ñoñam tey taxaw nañu takku temm ngir jàkkaarloog Macky moom Macky ci yéenekaay bi di yor yor Ousmane xamal na ko ne noppi na ngir xeex ak moom Ousmane ne ci yéenekaay bi di yor yor Macky bu bëggee jàmm dana ko am bu bëggee safaan ba yi dana ko am yéenekaay bi di l'observateur fipp lànk bañ a yoon dong la nar a nirool Ousmane Sonko ne ay ñoñam ci yéenekaay bi toog leen déglu ma bu dee ndigal rek ngeen bëgg da ngeen ko am alerte quotidien ne lu am ba des démb Kër Masaar foo sànni bàttu mu tàkk fees dell la def ak ñooñu Ousmane Sonko yi bawoo ci mbooleem gox yu ne ci réew mi Walf Quotidien dikkaat ci wax ju rëy ji Ousmane Sonko wax démb ca Kër Masaar moom jiital Pastef ne ci yéenekaay bi Macky Sall danañu faat mbaa ñu nga wuji yoon boo lankee ak foo mën a ne daañu la jël si takkal la lam yi jébbal la yoon Mame Mbaye Niang ci yéenekaay bi di Vox Populi ne lu am ba des moom noppi na ngir jàkkaarloog Ousmane Sonko 2 février bi ñu dëgmal Mame Mbaye Niang ne Ousmane Sonko wax ju rëy ji mu wax jëme ci man bu ko mënta prouver dana ko waxaat juróom-ñeenti milliards la ko Mame Mbaye Niang fas yéene laaj bu ñu taxawee ci kanamu yoon Le Quotidien yéenekaay xëy fësal xibaar bu doy waar journal bi ne Sénégal bu ñu sàgganee dina dugg ci ñàkku karange gu doy waar journal bi ne li ko waral mooy jihadis yi ñi ngi fëgg sunu buntu réew yéenekaay bi ne foofee ca Sadaatu am njort ne ab la ba gars yi jàpp ko wulli ko ba mu sonn ñeneen ñaar ñi mu àndaloon yéenekaay bi ne daw wëqët la ñu def grève bi transporteur yi nekk mi ngi ne fàng ci xëtu yéenekaay bi di évidence moom Mansour Faye koppatiw bay bañ ci yéenekaay bi lànk ndaare téye fa mu téye yéenekaay loolee tax na ba transporteur yi ñoom it ngànk fa ñu ngànk ne lànk nañu ne duñu bàyyi grève bi diggante AFP ak APR mbaa du sëy ba day waaj a tas ubbil l'évidence yéenekaay moom Alioune Sarr moo ne fàng ci xët mu njëkk yéenekaay journal bi ne élection présidentielle yi ñu dëgmal bu ñu sàgganee waa AFP daañu am candidat te Alioune lay doon les éco yéenekaay dikkaat ci meeting bu rëy bi Ousmane Sonko def démb ca Kër Massar journal bi ne moom Ousmane Sonko bind na testament ba noppi fas yéene tàbbi ci xare diggam ak Macky Sall critique yéene kaay ne lu am ba des diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko la 2 février bi ñu dëgmal dana mel ne mbàccum gerte ñoom ñaar muy Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang kenn ku ne yaa ngay tëkku sa morom li leer ba leer le 2 février ñoom ñaar daañu taxaw ci kanamu attekat bi Mame Mbaye Niang ne tuuma yu rëy yi Ousmane Sonko gàll sama ndodd bu ko mënta prouver mbir yi ko wexaat libération yéene kaay ne waa Pastef démb réussir nañu seenub mobilisation bu njëkk mbooleem ñañu àndal ak ñay jàppale Ousmane Sonko taxaw nañu temm ngir jàkkaarloog Macky Sall ak waa këram tribune yéene kaay ne moom Ousmane Sonko ma ngay menacé magistrat yi teyit nag ci lànk la fas yéene nekk ngir bañ ku ko àtte Mamadou Masale ci direct news ne Ousmane Sonko damaa yaakaar ne ci gént gu réy la nekk ndax moom njiital Pastef Mamadou Masale ne ko ne ko leer na li amoon ci weeru mars dootul am ci mim réew jolof ci kën moo leen doon may li ci yéene commandel rek ñu livré la Ilaaji Chérif Mohamed Aydara di médecin traditionnel di yëngu ci fajum cosaan ak aada maanaam lu jëm ci mbiri médecine traditionnelle Ilaaji Chérif Mohamed Aydara askan wi ràññee nañu ko lool ngir xarañam ci fajub cosaan ak aada mën lool wàllu bët maa la ko wax képp ku am bët buy xasan bët yu café bët yuy jooy mbaa am cataracte mbaa début glaucome dawal seeti Ilaaji Chérif Mohamed Aydara daf koy faj lu xeetoog ndoxum siti yaram buy xasan boo wokkee tàkkee mu naaj maa la ko wax sa degré feebaru ndoxum siti fu mu mënti toll rek Elaaji Chérif Mohamed Aydara daf koy faj yow mi am faiblesse sexuelle maanaam éjaculation précoce nga xamante ne booy sëy da ngay gaaw yegg Elaaji Chérif Mohamed Aydara daf lay faj ba nga dellu fa nga nekkoon yow mi bëgg yokk sa kàttanub sëy dawal seeti Elaaji Chérif Mohamed ay dara am jafe-jafe ci wàllu hémorroïde moo xam muy externe wala interne ñi hémorroïde sonal maanaam dem bay nag ci deret biir buy métti loolu lépp El Hadji Chérif daf koy faj day faj nerf sciatique prostate infection ak yeneen yu ni mel mboolem jàngoro buub seen bopp rap jaaxal leen te tëcc na du wér boo demee seeti Chérif El Hadji Mohamed Aidara daf la koy saafaral ci lu amul benn werante mbokk yi adresse baa nga Parcelles Assainies unité 10 en face église bi bésub alxamis yi nag El Hadji Chérif Mohamed Aidara ci Sébikotane lay nekk mbokk yi bu am ay leeral mbaa ngeen bëgg jokkoo ak Chérif da woote ci 77 796 68 68 wala ngeen jokkoo ak Chérif El Hadji Mouhamed Aïdara ci 76 461 68 68 El Hadji Chérif Mouhamed Aïdara macha allah dafa xarañ lool ci wàllu médecine traditionnelle daw leen ca